bi nga xam ni mooy Serigne Mbaye Sy ak ki nga xam mooy xalifa général de Mouride di Serigne waaye ci biir Saalum boo demee jaamal sëñ bi nee na ñu ngi ne moo nekk ci bokku njabootu borom jaamal di woo it ki nga xam ne mooy sunu bay Alxaaji Mouhamed Nafis Sall mi nga xam ne moo nekk Dimishka fàttewuñu waa Santhiou Aida Aïnou Mahdi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Bamba ak waa Fass Baraïna. ñoom ñëpp sëriñ bi neena mu leen di woo ci bis boobu ak medina yi sëriñ bi neena waa medina baay ñëwit suñuy dëkkandoo la ñu ak lew nañu seen ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu bis bi nag li nga xam ne mooy programme bi comme ni ko suñu mbokk aaruna waxee tabarakallahu bisub sant yàlla la bisub jàng alquran la bu ñu xëyee programme bu lépp ci xëy bi mooy jàng alquran ba midi jot su midi passé sëriñ bi dana dalal ay ganam 4 heures ñu daje ak ndawu gouvernement bi li nga xam ne mooy ci sant arafa xaaj Omar Dramé daan wax ne Omar day ñetti buntu la am mooy buntu téeréem buntu jàkkaam buntu toolam ci loolu nag ci lañu sax njabootam sax